mais est-ce que tamit euh, ñun waruñu def ndànk Touba boobu nga jógee. Mhm. foofu laa bëgg dellu tuuti alors euh, Touba dafay réclamer un statut spécial. Mm -hmm. et très spécial même. Mhm. Euh, Serigne Bassirou Serigne Mountakha Bassirou Mbacké wax na ko. ba mu leer. Mm-hmm. Euh, wax na mébét bi mu bëgg wax na ko en tout cas ba mu leer. Euh, ci bopp ñi nga xam ne ñoom ñoo yor nguur bi benn. Euh, Touba ñu jël privatiser la sécurité ñu gis depuis quelque temps ay Baye Fall ñoom ñooy assurer la sécurité. Mm-hmm. ñu gis des exactions contre des citoyens dóor ay jigéen ñii ñu wat leen gaañ leen ay arrestation yu al arbitraire. Mm-hmm. est-ce que yow mi nga xam ne vous êtes un fervent defenseur Euh, de l'État et de l'État lay mhm. est-ce que waruñu def ndànk. Mhm. au nom de quoi on devrait priver confier la sécurité de Touba à des citoyens qui n'ont pas la formation qui n'ont pas la légitimité euh, pour faire régner l'ordre et la et la et la sécurité muy benn. ensuite ce débat sur le statut spécial est-ce que waru ñu ko waxtaanee euh, bu baax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko sekk ñu xam ne kat Sénégal benn la. mënuñu ko pàcce pàcce mhm. non li nga wax je suis un défenseur de la laïcité la démocratie mais li ñuy jàngale démocratie mooy la démocratie c'est universel mais les applications l'application est toujours locale dëkk bu nekk da ngay am ay spécificités locales dama la jox exemple États-Unis mën nga dem élection am majorité comme Hillary Clinton wala Al Gore mais doo nekk président parce que yaa ngi sem des grands électeurs kenn mënu ko xalaat yeneen dëkk boo jëmee dëkk mel ni Inde l'Inde est très démocratique avec ces euh, avec ces 3000 castes donc Sénégal est très démocratique avec ses confrères c'est une réalité locale ñoom laaj nañ statut spécial ils sont fondés à le demander mais l'État aussi est fondé à répondre l'État est fondé à répondre il y deux modèles ou bien le modèle jacobin centralisateur comme le modèle français ou bien beneen modèle décentralisateur et puis démocratie tout tout tout tout ce débat tout se discute ku nekk da ngay wax li nga bëgg mais la seule constante mooy da ngay wax li nga bëgg mais doo ko forcer doo ko jaay doole ni li mu bëgg moom mooy am par force mais ci démocratie lañ nekk am nañ droit ni ñoom bu ñu sañoon am statut spécial te boo gisee même li ngay wax la présidence de la de la police ak yu la police est à Touba la gendarmerie est à yi amee tey euh, kilifa diine yi nekk Touba li ñu doon xaar wuyu nañ ci ñoom ñoo njëkk a wax que bi commissaire bi waxee ñoom ñoo njëkk a répondre positivement rappelé ñu rappelé ñu à l'ordre boo xool le modèle américain bi nga xam bu baax boo demee États-Unis il a des modèles de sécurité privée il y a des trucs de sécurité privée mais loolu mooy démocratie cest démocratie day évoluer mhm. euh, la sécurité privée qui intervient aux États-Unis je les ai vus intervenir à l'ambassade du du du, du Sénégal mhm. euh, mm -hmm. à, aux, États-Unis dafa wuute ak li nga xam ne loolu la ñu gis ce sont des gens pas en, entraînés pas formés qui n'ont aucune légitimité pour assurer une sécurité dañ koy def selon ñoom li ñu li ñu gëm et puis en foulant parfois au pied euh, li nga xam ne moom mooy ngëm-ngëmu ñeneen ñi on a vu des des des exactions xam nga euh, njëkkoon nañu dissoudre euh, milice sécurité privée boobu mais dañoo dellu siwaat euh, après les événements de février. Mhm. Euh, 2022 euh, maanaam bi ñu fa amalee euh, ay meeting yu yu mhm. yu yu yu yu bëree bëri te aujourd'hui dafa mel ni délimité ñu périmètre bi mu mel ni parfois on a l'impression que le pouvoir central pour des raisons politiques et politiciennes. Mhm. dafay gëmm ci yenn yi du ñemee wax et puis au risque de de de Euh, la la la la centralité de l'État bu ñu doon décentraliser l'État euh, kon ñu nangu woon l'indépendance de la de la de la Casamance. non non Casamance. te boo nangulee Touba statut spéciale euh, ëllëg bu ko teewaawoon laajte di nga ko ko nangul bu ko keneen laajte di nga ko ko nangul. wax nga moom bu am solo wax nga moom bu am solo da nga ni exaction. exaction c'est-à-dire ñooñu c'est des citoyens privés ñoo def exaction bi ñu ko defee quand le commissaire qui représente l'État de façon républicaine bi ko commissaire bi dénoncé ils ont été rappelés à l'ordre des mesures ont été prises et pour moi c'est ça le plus important li nga wax exaction nga wax ça veut dire que ñoom dañoo ëppal loo xam dañu def loo xam dañu ciy ëppal bi ñu ci ëppalee le commissaire là de police euh, j'ai son nom, quand il l'a dénoncé en leur disant vous pouvez aider la police, mais vous ne pouvez pas vous substituer à la police. Effectivement, les autorités religieuses de Touba ont donné raison au commissaire. Le truc a été dissous, comme ni nga wax exaction la. exaction mooy loo xam ni donc ko def amoo ci benn pouvoir amoo ci kii euh, décentralisation mooy loolu mais li xew Casamance li am Casamance ni ñu koy waxee ça c'est un projet séparatiste Ça veut dire que nous, pas, nous ne voulons pas de, spéci, de, statut spécial, nous ne voulons pas de la nous voulons pas de la régionalisation, nous voulons nous séparer du Sénégal. C'est différent. Les deux cas sont différents. Mais l'homme démocratie. La démocratie gère des questions humaines, gère des réalités humaines. Et chaque fois, comme je dis souvent, hmm, il n'y a que dans la religion où on a des réponses simples et définitives à des questions complexes. la démocratie, la République gère des questions humaines. Et il n'y a pas de solution, de réponse définitive à une question humaine. Et c'est pourquoi la démocratie, le débat n'est au cœur de la démocratie. Ils disent qu'ils veulent un statut spécial, ils vont poser le débat, et l'État va prendre le problème et l'analyser et répondre favorablement ou négativement. Mais c'est ça la démocratie.